waaye di nuyu bu baax Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad moom mi nga xam ne moo fi jëmmi Cheikh Abdoul Ahad eh, di am mbégte bu baax a baax mu rëy rëy ak tawfeex ju rëy joo xam ne am nañ ko ngir jataay yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci waajtaayu màggaluk Cheikh Abdoul Ahad tey jii nag ñu am jataay bu taw tawfeexe boo xam ne ñu ngi fii ci Daarul Moxti ci kër eh, sunu kilifa gi di Serigne Bassirou Mbacke moom maam Thierno Ibrahim Serigne basiru Anta Niang Euh, ñu ñëw fi ngir euh, fas yéene taatan ay kaddu yoo xam ne kaddu yu ñuy jariñoo la ci jëm ci jëm ji nga xam ne moom la ñuy waaj a fàttaliku ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori ñu ñëw fi nag ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad moom mi nga xam ne moo sos commission bi di commission culturelle bi ngir bëgg ñuy jariñu ci njariñ lu rey loolu nga xam ne Serigne Touba defal na ko Cheikh Abdoul Ahad ci jikkoom ya ak ci melokaan ya ak di ko fàttaliku ngir bokk yi jullit yëpp mën cee jariñoo euh, tey jii nag ñëw fi ànd ak sëñ Abdou Lahad Jaxate mi nga xam ne moo jiite commission bi euh, sëñ Abdou Lahad Bousso maam Asta moom bay Serigne bu soobee ak sëñ Abdou Lahad Ka moom sëñ Modou Kabir Ka euh, ñu ñëwoon fii nag ci Daaru Moxti ngir fas yéene taatan kàddu yoo xam ne dana dana am njariñ ndax jaxasoo boo xam ne xam naa ne am na ci digganteem ak Cheikh Abdou Lahad waaye bu dul loolu sax boroom xam-xam boo xam ne dund na ak Cheikh gis ci moom ay njariñ ak ay melokaan yoo xam ne lum gàtt-gàtt rek su ko waxee bokki jullit yi danañ ci mën a jariñoo euh, kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaara di la euh, jox kàddu gi loo loo loo ñu mën a laabiir rek ci jëmm ji ñu fàttaliku muy Cheikh Abdoul Ahad ndax euh, tawfeex la ju rëy ci ñëw gi ñu fi ñëw ndax xam nañ ne bu dul dara sax jëmmi maam Thierno mi nga xam ne moom nga wut rek euh, fi ko fi ko Cheikh Abdoul Ahad tegoon ak ni mu royee ci moom ngir mën a doxal xilaafa gi ndax xam nañ ne bu wér a wér maam Thierno képp koo xam ne tong jataayub sëriñ bi ni mu demee woon ak moom ak ni mu déggee woon sëriñ bi faaw nga roy ci melokaanam ngir mën a doxal la ngay jiite te loolu lépp ay njariñ la yoo xam ne yow mi ko fi toogal tey jii kon tawféex la bu ñëwee taatan la suñ micro euh, mën a jël ay kàddu yu njariñ ci yow kon sëriñ bi ñu ngi lay jébbal kàddu gi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa ngi leen di nuyu di bég lool ci yónni gi ñu leen fi yónni ak dox gi ngeen di dox tànki mbokk ak tànki wëllëre ci sunu digg ak sëñ Abdoulahat ndax moom moo doon sunu lépp ndax man maag sëñ am sotu da doon sunu wëllëre woo xam ne wi benn la noon mun toogee sax dafay ñëw yebal ca otoom jël si mun amee ñetti fan ñu ñu gisul rek gis eh, daal jël si am nan fa ay weer ay weer sax lu mu daa def lu it woonul dina ko def loo nga xam ne kilifa gu fi bàyyi ko la mu dina ko miraas loo wala mu dina liggéey loo ginnaawam ma am bis eh, sëñ am satu soxla ko ji fi ñëw bëgg ànd ak waa daaru ni ak mbooloo mbooloo mu bari ban demee sëñ am def ko nisaam boo xam ne wut koo xam ne kii ba demee mooy wax ci borom daaru am koo xam ne kii mooy wax ci taalibe gi am koy wax ci li nu tax a jóg waaye ba mu tàmbalee wax ba nga xamante bii sëñ am sa jox na ko yem indi addiya euh, ba noppi ak lamaan lépp kam mm-hmm. waxloo Omar Diop la tudd mm-hmm. ci ñi sañ ci dëkk bi la bokk dëkku sëñ bi fonkoon na waaye ba mu jógee bay bëgg a wax sëñ Abdoulaye da ko tàllal loxo ni ni ko noppil Thierno mm-hmm. moom bu ci dara ndax Eh, wax ci sama digg ak moom mu jëm ci man maa ngi ma fii ma toog moo tax ma toog fi ginnaaw moo tax ma toog fii ma toog nag ba ngeen dema fekk si loolu doy na ay wax doy na daraja mu ne su ko weesu wax ko kay bëgg a wax muy Omar Diop mm-hmm. mu daal noppi mu nuyu ko noppi jox ko la mu ko jox xamoon naa ci xamoon nañ ci ay jikkoom it ak baax goo xam ne gii ak mu xel moo xam ne mi ak ak bëgg gu bëgg borom daal bëgg goo xam ne gii musuma ji sax eh, ku fa daal jàng xaw naa kii yees def waaye taxul nu gis ku mën a yegg bokk na ci ndimbal yu mu daa dimbali nit am na bis fi may tàmbalee daara joo xam ne ji fii la nekk muy sëñ Matar Lo sëñ Modou bi xam na ko daa daal bi àddina di dox ba yàgg yàlla def amatul lu lu mën a yore daara ji mu mu bind leetar ñëw ci Abdoulaye wax ko ko ni lettre jox bu ko joxe lettre bi ban demee ci biir maak moom ak sëñ am satu mu ñu waxtaan ba yàgg mu ne ma Basiru seen góor gi jógee daaru nga wax nim mu mën a jàngale ak ni ci yoon wi eh, nu deme mu ni ko mu nettali ko ko ba yeggal eh, ni ko nag waaye dama bàyyi daara de ca ndax li ma yoroon jeex na te mënuma leen a dundal te seen i ak seen i kilifa mënuñu joxuñu leen dara wax nag damay bàyyi moo tax mu bind lettre bi ku ma ciy dimbale wala ma bàyyi ko bi mu ñëwee daal di woo Aliou si li mu yoroon bi ne ko jox ko ñaar fukki bërigo pepp hmm. ba nga xay ne bi jox ko ko sëñ am ni ko ah da nga sonn ndax ren de at mi dafa tawut tool yi daal nekku ci mu ne ko waaye lu la war moom du la wàcc mukk man nag ku ñëw lu ñu nun ko dimbalee waaye nun dañoo defoon ni boppam rek ni boppam rek lan dewoon noo daa bokk añ di bokk reer di bokk lépp maak moom ak sëñ Amsatu def nañ ko diir bu yàgg lool bu ne bel Tuubaa belal woosinu bu ne Tuubaa woosinu loolu nag tax na bu ngeen bu sëñ si di loo ci bisam noo man def daa ci wax dara waaye wax ji dama ko mënatul yéen am nañ xam nañ ci lu bari loo xam ne buñ ci doon wax yaakaar naa ne guddi gi dana sori lool waaye nag man gi yëggatu ja yéen ji yegg na ci waaye man gi yëggatu ja bokk na ci ak tabam lu ko waaye laaj te de da koy def na mu ko bëgg man yoroon na sax loo xam ne da ngay defe ne ab yell la ndax mas na noo toog ci mbaar moomu ab daayira bu mag a mag mag ñëw fi bañ indee lañ indi mu di ko wàññi mu bari lool ba daayira ba ñaanlu ba dem man képp maag moom toog fa am ci ñaankat yi koo xam ne kii da ko wut ci rek di ko joxoñ di ko wax nu muy nu mën a ñaaneek ak num mën a waxe mu ni bas ma dégg waa ji duñu ni ko ah déedéet duñu song nag de duñu song de ah mu ne ah de lii ko dóorut koo xam ne lii ba mu ba mu ne ko eh diw damay bañ a jaar ci tur diw bul yegg si de bul yegg si de mu ne ko jëm ci moo ci yow jëm ci ci yow am nga sa kër diir bu yàgg boo xam ne bi gisoo ma xamoo ma léegi bi nga doonee sëñ Tuubaa nag mooy tax ma ñëw ci yow si sëñ Tuubaa laa jëm ci bu boo dee sëñ ma yegg si boo dul sëñ Tuubaa naam ci soxla mu ne ko yegsil ba mu yegsee la daayira ba joxe woon lépp da ko yëkkati jox ko waa mel ni ku daan nag rek lu fa lu fa ne ma ne ko sëñ bi yaa ngi joxe li nga li ñu lay jox lépp li <laughs> ma ne ah sëñ Tuubaa ko moom mu ñëw ni ma jëm si ma ci yow ci sëñ Tuubaa laa jëm ko jox li ma am lépp daal koy jox loolu la lépp jikko yooyu daal lan noonu la ñu ci moom noonu nag dana jàppe woon ni borom daaru rek noonu lan noonu lan jàppe woon bu nu gisee woonu nu bu nu dal yebal si oto bi mu mu si xam na daal diggante ci borom daaru loo xam ne lii yi ñu bàyyi xamuñu ko ci man nag mun mu ne la wax dara ci borom daaru ndax sama baay nii la mel ak sama baay Eh, eh, li daara ji jilaam ji sëñ Tuubaa di ko wax di nit ñi di ko dégg xel mu naqari rek lay nuuru ba tax na li ma xam ci moom du ma jox dara waaye xam naa ne eh, li ma dégg ci ñoom ñooñu nga xam ne ñoom moo ñooy doy na sëkk ndax dégg naa sëñ Abdou Khadir nu bokk toog mu wax nu waxtaan ba tudd borom daara mu ne aaw bor Ceerno eh, de moom xam na ci sëñ Tuubaa lu kenn man na ci sëñ Tuubaa lu kenn mënut eh, eh, ñeme na ci sëñ Tuubaa lu kenn ñemewut mel na ci sëñ Tuubaa it lu kenn nu kenn melut waaw déedéet sëñ Abdou Khadir moo wax loolu waaw mm, mm, bu moo xëyee sëñ Mahamadan mi may jàngal ci koso lay àndal màggalee dem màggal ga bu nee kër sëñ Abdou dal ba am fan waaye bis bu ni man danaa dem kër sëñ Abdou Khadir danaa dem kër sëñ moom dal kër sëñ Cheikh may bis sa sa sëñ Abdou ko eh, sa kër kenn nga fa Cheikh mu ko waaw Bassirou moo fa nekk moom daaru ma si Bassirou Anta Niang mu ne ko booy ñëwaati bu ma la wooyee bu bëccëgee na nga na nga na na ko indaale kooku kat sañu noo jëfandiku mu ne sa nu ne fii di jëfandiku bi ma ko waxee sëñ Moustapha Moustapha Abdou Khadir nettali ko am na fukki fan ak juróom am nañ ko fa ci carrière ba man moom sëñ Abdou Khadir man Cheikh May nooy bokk sëñ Moustapha ni ma yow am nga ci sëñ Abdou Khadre loo xam ne nun ñi di doomam sax amuñu ko ci kenn ku la daanaa bokk ak moom de amut ma ni ko man de fukki fan ak juróom bokk naa ko moom añ ak reer ci borom daaru nag bu fekkoon fekk ngeen ma ci waxtu ma danaa ko wan ko xam bu baax a baax a baax waaye bind ci ab téere te boobu 1977 la ndax man daanaka nag bi bi nga xaye ne bi jàng naa ba ba man alxuraan dama eh, ba jàng ci dama dem kosu jàng bi ma jàngee ba yeggal ma dem ñàkk man ulumul asriya tis ma dem Ndakaaru bi ma fekk Matar mu xeesum pecc Matar fan ñaa ngi tey mu nekk building di wa liggéey am sama taalibe bu dee nag moom nii ma ne ko sëñ ma ñu ni ma ku mën a ma ne ko ma sëñ Matar dama bëgg nga di ma jàngal dimbali ma mu ne waaw man kay mën na may ñëw di yendu si ceew bu ma wàccee ñëw bu suwaay it waxtu ma wàccatee rek ñëw def noonu ba loolu ma waral ma dolli ko waat soo xam-xam baax a baax a baax Hmm. ngeen baal na nag ki gàtt ki ndax waroon naa gudd loolu waaye nag eh, eh, bi nga xam ne bi sëñ Sidi it ma yeggale sax ci sëñ Sidi ndax bi nga xam ne sëñ Sidi indi eh, bàyyam indi ko koso moom it sama la ko sëñ Mahamadoon indi mu dëkk ci lalub pekku bi ma nekk ci lalub sowu bi lu mu jàng foofu la ko jànge ba mu xaritoo lool mu bëgg ma lool mu bëgg ko lool loolu xam naa moo waral lii bëggeel googee nag ba tey dara wàññi ko ci daa dolli ko rek na ngeen ma jégal nag ci ñàkk mën a wax gi ndax wax rek la waaye mu yokk gën fi yokk lool waaw salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi ñaan génn dugg ci màggal gi génn ci ci jàmm te sëñ Sidi yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan ak yéen ñi nga xam ne yéenay bokk yi sëñ Touba yéenay sunuy lépp bu ngeen nu gisee ak bu ngeen nu gisut bu ngeen nu xamee ak bu ngeen nu xamut da ngeen xam ne cofeel gi daal kenn ku leen ci jiitu amunoo belal googa mu dem ci lewu borom daal la woon sëñ Saliou sëñ sëñ Fallou Ndiaye moo ko moo ko ko sëñ Fall moom it waayam borom daaru ko ko jox waaye sëñ Abdou moom daanaka loolu mënees na ci bañ a wax ndax li wax ci rajo yi bari na li wax ci band yi bari na wax ci làmmiñ yu boppam ku ni dégg mën nga ci am fi mu lu ma téeméeri eh, téeméeri kaset yoo xam ne boo ko dégloo dana loolu mooy gën a jàpp ni ci ci yow mooy gën a di ci man waaw waaye li ci moom daal ku tabee ni moom ak ku doon na yaaram ni moom ak ku nuru sëñ Tuubaa ni moom daanaka man gone laa dama waaye dégguma ko dégguma daal ku ko jiitu ren ci len daal jiitu ma ko waaw am na bis ko ku koy wax naa ko sëñ nga war noppalu waaye sa naan nal ji metti na lool ci mbokkam ay mbokkam mu ne ko ah man de du ma noppalu ndax koo xam ne kii jant baa nga ci takkusaani suuf di xoow di waaju so te nga bëgg bala balaa soo nga def fi dara doo noppalu wala boo noppaloo da nga ñàkk li ngay bëgg a def loolu loolu xam nga ci la njàmbare doon doon xam bi moom ku ne xam na ko moom da ko man boo fa masaane léeg-léeg mu ne ma bas waaw laay sàngam tudd laayoo tudd baat ni ma lu baat eh, lu na ci ginnaaw ma ne ah, man kenn mbàkke xaman loolu xawma ko moom kay waxal sa rek waaye man mun maa waxi wàlli yoo xawma ko kalamu law li yaay lestu an ah, xawma ko li ana ni ana xawma dun lenn lu taalibe nag salaamaaleykum wa rahmatulah. baarakallahu salaam wa sëriñ bi sant nañ bu baax a baax ñu ne ñaanal suñu borom kattanal la bu baax te may la wér ba li nga yéenee liggéeyal borom daarul yéene ko liggéeyal sëriñ Touba lépp nga matale ko barakati xaadim rasul xam naa kon kaddu yooyu tàggatoo rek yoo xam ne da nga ko da nga ko mën a mujjee ñu tëjee ko rek waaw. yàlla na yàlla defal sutura. taxawee nu siraatal mustaqim ñi sunu waajur yi a nekkoon ba yóge fi ndax lenn loo nekk loo xam ne lii du ngërëmal yàlla néew ci wala loo xam ne lu yàlla digle néew ci loola loo ko am na njëriñ it amul njëriñ daa tolloon nag àdduna moom dara du ci feeñ xanaa la way arab ba waxoon rek loola mu waxoon ne sawfa tara isan jalan xubaaru afara sun tax taka am himaaru bu nu ye dégg yegg fan jëm ki war fas dana xam ki war mbaam dana xam ki daagu ci naaj wi dana xam mbokk yi kon dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne ñu ngi ko doon taata taatate fii ci Daarul Muxti ci kër sunu kilifa gii di sëriñ Basiiru Mbàkke moom borom daaru sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ nekkal fi borom daarul moxti ñu ñëwoon fii nag ngir waajtaayu màggalu Cheikh Abdoul Ahad bi sëriñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad yabal nu fi ngir commission culturelle bi nga xam ne soos na ko ngir wax ñu nañu Cheikh Abdoul Ahad géej la kon bëgg nañ nit ñi di ci jariñu waaye nag na ngeen di dem ci ñi ñi ko xam ngeen fay taatan ay kàddu ngir nit ñi jariñu ci moom mii nag euh, doon jëmmi borom daaru doon doomi maam Cerno Ndoyeen sëkk waaye nag dafa am jaxasoog boppam goo xam ne wax na ko léegi goo xam ne amoon na ko digganteem ak Cheikh Abdoul Ahad ci mbokk gi ak xarit gi ak lépp moo tax kàddu yi nga xam ne wax nañu ko bëri na jariñ lool kon ñu ngi lay ñaanal sëriñ bi suñu borom kàttanal la may la wér ba li nga yéene liggéeyal borom daaru lépp nga liggéey ko li nga yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa lépp nga matale ko kon ñu ngi sant bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ak bokk yi ñu àndaloon Cheikh Abdoul bu Bousso moom Baye Serigne Bousso be euh, Serigne Abdoul Ahad Jaxate moom Serigne Cheikh Jaxate tundoo di Serigne Abdoul Ahad Ka moom Serigne Modou Kabir Ka waaye ñuy sant bu baax euh, sunu bokk yi ñu fekk mu njabootuk sëriñ bi sëriñ Modou Kara waaye sëriñ Mahmoudan euh, nga xam ne ñun ak ñoom benn lañ sëriñ bi ñooy ànd liggéey bi. kon ñu ngi foog sëriñ Abou Mbacke di sët ci Cheikh Abdoul Ahad loolu it ci euh, jataay bi waaw di doom waaw soxna Tahiratu Cheikh Abdoul Ahad est-ce mooy waajuram waaw macha allah kon nag loolu day firndeel rek liñ doon wax léegi loolu firndeel na ko waaw. kon yàlla ñu yàlla defal tawféex rek ak taysiir euh, sant nañ bu baax a baax a baax te suñu borom yóbbu ñu ci màggal ga ak jàmm ñu ñaar fan ak ñett ci weeru kori bi te àgg ci ak jàmm te suñu borom matale yéene yëpp rek ba li nga xam ne ñu ngi koy sàkk suñu borom man ñu ko may barkati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin